fàttaliwaat sunu bopp rek yitte gi ñu war a jox jàkka yi ak néegu yàlla bi ak respect bi nga xamante ni war nañ ko koo jox rawatina nag téléphone yi nga xamante ni mi ngi sunuy loxo ñu góor góorgóorlu ci la chaque léeg-léeg yàlla nattu la nga indi sa téléphone nga jàpp ni fay nga ko wala def nga ko silencieuse fekk ni fàtte nga ko ndax doomu aadama nga ñun ñëpp lay dal téléphone bi sone su boobaa da nga yëg ni ni yow juum nga te am nga lu la metti waaye foofu mbokk yi ñaari jàngale lañ ciy def ñu xam ne ni uslubu daawa mooy woote jëme ci borom bi subhaanahu wa taala nañ ci roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay ñëw na ci jàkka ji saw ci digg jàkka ji ngeen baal ma ci kàddu gi benn arabi ji saxaaba yu jóg bëgg koo song yonent bi ne bàyyi leen ko ba mu àggale ngir bañ koo lor bi mu paree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne saxaaba yi indi leen siwo ndox ngeen sotti ko foofa ngir sobe bi dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yaatu dënn ga ca mbaax ga ca tabe ga ca xam ni muy jàngale ak ni muy jubbantee mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko toogal mu ne ko ah li nga def ci béréb bii de àndul ak béréb bi ndax béréb bii bu tudd yàlla la bu jàng alquran la bu julli la su benee ne bu ko defati waa ji xam ne nii ki wax ak moom jubbanti na ko te delloo na ko arabi yi bis boobu dafa kontaan ci li ko yonent bi alayhi salaat salaam wax ba mu jógee mu ne yàlla yàlla nga ma jéggal te jéggal yonent bi waaye ñii bëggoon ma duma bu leen jéggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muñ ca mbaax ga nee ko yaa ngi xatal lu yaatu jéggalu yàlla ñëpp ci xaj bu ñu demaatee ci beneen xadis ci njàngale yonent bi alayhi salaatu salaam benn waaye julli na ci gannaaw yonent bi alayhi salaatu salaam mu ti sool yi nit ñi di ko xool mu ne mu ne nit ñi lu ngeen may xoole kooku julleem yàqu na ndax wax na ñeen ñenn ñi ci saxaaba yi jël seeni loxo di ko dóor ci seeni tànk ngir bëgg koo noppiloo waa ji di wax rek ñu fëgg seeni tànk ci biir julli ba waa ji noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu moo jiite bi mu wëlbati ko waa ji nee na maa ngi jàpp ni dana ma xas dana ma gëdd waaye nee musumaa gis ko baaxee ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mun a gëdduma xasuma waxul loo xamante ni metti na ma waaye dama jubbanti ne ah béréb bi kat laajul loola su benee ne defeel nii defeel nii mbokk yi loolu mooy bil xikma wal mawidati al xasana moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni noonu la doon jàngale noonu la doon wootee bu ko defee ñu góor góorlu bu baax a baax ba bu ñuy jubbanti ñu xam nu ñuy jubbantee ndax koo jubbanti ci biir mbooloo du la dégg yonente bi alayhi salaatu wa wassalaam sahaaba yi daanañ def dara mu xam ni diw moo ko def bu taxawee ci jàkka ji du xutba du wax diw waaye danaan fa ma baalu qawmin yafaaluuna kaza wa kaza lu ngeen xam ci gaa yu def nangam ak nangam du wax sax lu ngeen xam ci waaju def waaye ci gaa yu def mu def ko jam alayhi salaatu wassalaam ba yow mi toog nga xam ne nii wax ji ci yow la jëm nga jubbanti ko xoolaat sa toogaay loolu mbokk yi moo waral ñu war a jàppalante te yàlla subhaanahu wa taala tax xam ne ni sunuy jéegu ñun ñëpp ci néegu yàlla bi mooy bëgg lu baax kon lenn lu ne nag ñu ko bëggee saafara il faut que ñu dellu ci njàngale alquranul karim dellu ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye dellu ci ne yonent bi daan jàngalee ca yaatu gu dënn ga ba alquran nekk fa min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalbi lan faddu min hawlik faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi l amri yàlla nee na ko boo xatoon dënn boo nekkoon ku soxor boo nekkoon ku gaaw a énervé boo nekkoon ku yaatuwul ñi la wër duñ la wër alayhi salaatu wassalaam yàlla ne ko faafu anhum baal leen wastaxfir lahum na ngeen leen di jéggalul yàlla waaye washawirhum fil amri na ngay diisoo ak ñoom ci mbir yi mbokk yi lii mooy njàngale alquranul karim